morning guys back at my walks again yeah <laughs> I told you guys I'm back at my walks again but yeah trying to take it regularly now that it's summer so yeah how you guys doing still at my weight loss journey guys it's walking slowly these pants are big now even though I tie it is falling down. At first, it wasn't like this, but gradually, yeah. So today, I'm gonna do just over five kilometer. I'll post it for this video. So yeah, how you guys doing? Silungen, mij toch. dox pour wàññi yaram mhm. dox dox bi dana mat benn waxtu ak lu teg waaw juróomi dana ko ak lu teg incha allah waaw dox pour wàññi yaram waaxu suba teel soo xëyee nga waaxu waaxu waaye fa baax ci wàññi yaram ne netti waxtu passé na netti waxtu genn jot wala mu passé it's not too early now it's about after eight in the morning now something like that guys, it was beautiful, singing. look at this beautiful place. It's like a little jungle. I love walking here. It's my favorite place to walk. A lot of nature here. ضخ فيك مانيح فهماني أبحال لغني basi called? okay guys later <laughs> walking is not just good for weight loss but it's also very good for your health <laughs> walking especially when you're walking fast. You get used to it. Just keep trying. Even when you fall out of it, keep going again. waaxu bu baax a baax a baax ci wér gu yaram la ku koy def dafay joxe fan mu gudd dafay joxe wér gu yaram dafay tax sa yaram yi wàññeeku dafay tax doo gaaw a màggat dafay joxe happiness bëree bëree bëree bëri la dox di dess yaram soy dox bul di dox xalaati haduna di jaxle di mer dede na nga release mer ak jaxle yeb ngay dox di wax ne no bëgg ci haduna yeb yalla nga koy may jere jërëjëf yalla ku baax la ku am jamm la su fekkee ne nga feel ne xamoo jàmm sax ba tey waxal lool su yàggee da xam jàmm incha allah di sant yàlla it di sant àdduna si ba nga mënee a dox xam na ñu bëri ñoo xam ne mënuñoo dox te gënoo leen lu baax a baax a baax a baax a baax a baax mu ngi noonu de dox ak mindfulness ah, caméra bi I'm saying when you're walking, you have to walk with mindfulness, thanking God if you have one, or thanking nature. Nature is very important to us. Because of nature, we are alive. The trees and all this good stuff, stuff that giving us oxygen to breathe. You thank it, thank yourself. Thank the universe. Oh, I'm so sorry. <laughs> Somebody coming and I just crossing. I didn't see Thank the universe. Thank everything. Wanted to show you guys this bit. You can see the buildings through here. It's a beautiful view. But I love nature. I'm gonna get to my favorite part of the walk soon which is the water part. Don't walk carrying your stress. That's gonna be a real, that's not gonna be a healthy walk for you. When you walk carrying your stress with you, your life problems, your worries, don't do that. When you're walking, just release all the stress. Let it go. Honestly, what are you gonna get carrying it? Just what you're gonna get. you get nothing carrying it. Eh? So when you're walking, just let all the stress go. Just release it for now. Learn to release the stress and the worries. Doesn't matter what situation you're in. Just what you're gonna get carrying the stress now, honestly. Stress and worries don't fix anything. You can fix things by thinking about it but it's not in a stress stressful way carrying the problem for so long you have to just think about a solution and if you know that there's no solution right now or you cannot think of a solution right now you just leave it and even when you have the solution don't worry about the solution and the consequences of the solution just decide it just decide this is what i'm gonna do about this issue and choose the right thing to do and just go for it that's it. Case closed. Don't carry the problem. Limay may wax So, soo xamee life problem life issues life problem fitna àdduna bu ko gàddu di ko xalaat gu dee ba ci xam nga lusa. tax xalaat gi du ko faj xalaat gi su bëree fay tax yow nga naqadi affaire naqadi deret feel weak dafay febar sa yaram bi xalaat bu bari fay febar yaram laaj ko docteur yi mooy number one febar bi gën a bon moo gën a bon cancer cancer sax nit fa koy xam mu wét te du garabi tubaab ba koy wétal de lekk-lekk yu baax ah comme ça lekk yi ma leen di wax ni lu ma xam lu baax lu ne wala nga jàng si ñeneen ñi ah ak di dox nga sa yaram wi di naan ndox di ba xalaat nit ñi am cancer fañ koy def ba seen cancer bi wét fii bitim réew gi tubaab yeeg ñëpp waaw léegi yow xalaat soo ko xamee di ko feex di ko gàddu du tax mu fa mu faju su dee ngaa bëri xalaat ah, tey jaaxle yow yaa war a jóg dox waaw su xëyee suba teel nga dox lu sori waaxu ba sa yaram wi sonn nga ñëwaat fay dindi sa xalaat dindi sa stress fa lay def nga xam happy hormones happy hormones mooy fay def nga happy fa xam hormones yu ne yaram wi stress hormones xam na happy hormones xam na soo yënga sa yaram wi fay wàññi stress hormones yi indi happy hormones problème boo ci ne ngay xalaat ne ok nangam bi fi mu ne nu may def nangam bi xew na wala nangam bi si laa ne fi mu ne nu may def nga xalaat yow nooy def pour problème bi faju mbala mu tane that's all xalaatal nooy def problème bi faju mbala mu tane waaw da xam ne yenn problème yoo xam ne yow mënoo koo faj ci saa si boo ko waree faj yow sa àdduna mooy yàqu yow ngay gën a indi sa bopp problème li nga wara def moy nga withdraw from the problem nga genn ci xabal ko seeni worom do seen mata ko lay indi problem bi kan la way so xamee jàmm ak haduna xam jàmm ak sa bop yu bëri sax yo xane moy nek problem ci yow du problem da ngay kaam do nek di jël litul isu lu nek nga def ko problem bu reuy ndax non bokoy def da nga ma sa xam ndax àdduna fu mu toll da nga gis lu lay war a merloo wala lu lay jaaxle loo waaye problème yu rëy laa wax boo ko xamee ni sa dox ngay toog di xalaat problème bi guddee bëccëg xalaat baax na waaye ñun xalaat bopp bi ñuy def dafa xam ñun si nit ñoo xam ne ñun we overthinkers we overthinkers noonu lañ yàlla bindee sañuy xalaat ba ëpp ba mu ëpp fa xam ni ñu ko yàlla bindee comme ça ni yàlla defee yenn nit ñi bugg xorom yenn nit ñi bugg xorom yenn nit ñi bugg sukur ñeneen ñi bëgguñ sukur ñeneen ñi noppi ñeneen ñi bëri wax ñeneen ñi tuuti ñeneen ñi ndaw ni ku ne ñeneen ñi rëy soore ni ku na ko yàlla bindee fa xuute xel mi it noonu la doomu adama njaay bu ne sa yëpp a xuute sa yëpp a xuuteeg sa morom fa xam ni ñoo xam ne fañ mën a xalaat xam ni ñoo xam ne fañ mën a living relax su fekkee yow nit ku mën a xalaat nga overthinker ngay xam sa bopp ndax su boobaa man mii noonu laa mel dama dee overthink si overthinker si laa bokk waaw overthink léeg-léeg coono xaa dina fa koy waral soo dundee métti fa koy waral mbala jos nga bindoo ko waaye yow yaay xalaat ne problème bi lu ma ko xalaat xalaat xalaat xalaat du tax mu ba luma ko khala khala khala du tax mu genn xalaatal garabi problème bi nga def ko bul xalaat suma ko defé nit ñi lu ñuy wax dedet nit ñi so len xalaatee lu ñuy wax do do do wax problème bi te do genn ci problème bi yo ya xamné problème bi suma ko topé man may dé ndax problème bi ma ci ay hat te dimbalé ma te nit ñi nga xamné ñoo koy la koy tek nga xam ne pare huñ pour ba ko pare huñ pour even understand la léegoo léegi mën ngaa withdraw nga wax ak ñoom rek ne xam nga lan la problème bii ñu ne wala problème bii nangam ak ki nangam ay xat nekkut di ma fiibo nekkut di la fiibo yow sax léegi li ma bëgg mooy ma génn ci problème bi wala ma génn ci situation bi you know for léegi nii xaaral rek ma génn ci situation bi noonu nga koy waxee rek nga withdraw ba seeni waram wa bu len bañ nak waaye ba len nga meuna a fuu ko si yow noy def ba xam jàmm meuna a fuu ko si yow noy def ba naqar bi nga yag di dugg xat yi mu genn soko defut do ma sa xam jàmm ak haduna dox bi dula dimbal. dimbali waaw ndax dox <laughs> that's right. <laughs> he's naughty xaj <laughs> bee dikk wa si man rek mu yelbu waaye yàlla baax na ndox mi lifinul ma dugg suma gémmiñ bi fële la doon sangoo so noonu la problème bi yow yaa xool nga xam ne problème bi suma ma ci withdraw du ma xam jàmm nga mën a foo si yow mën a release sa sa sa stress yi xaduna ak man a focus mën a xalaat si xaduna foo koy foo koy jëmale nekk parce que am nañ yenn yenn problème yoo xam ne soo ko waree faj wala soo waree xam ne yéen nit ñoo xam ne soo waree dugalante ak ñoom wala wala di wax ak ñoom ak a ñoom ah yow sa bopp yow yaa dul sa problème ak sa stress moo dul génn waaw parce que duñ la understand duñ dégg ba pare dañ naqadi mbir naqadi deret naqadee waxal naqadee you know so yow yaay withdraw su fekkee ne nag problème stress bi nga xam yow loo xam ne la fa la dal si gannaaw you know wala loo xam ne la ngay jaxle si kanam bul jaxle xamoo suba lu muy dox jarul jaxle su de lula dal si gannaaw la jarul jaxle waste of energy la dal na la ba pare jarul metit relax rek nga happy right now nga def yu lay happy lo. su hmm? de sa yaram wi nga wara wañi pour nga gëna sawar sa yaram wi gëna mel ni la neex ak yow sa bop nga gëna xam wet gu yaram nga def ko bul ko rusa def bul xalaat soo koy commencé di def nit ñi lu ñuy wax nit ñi so toge wëcc sa yaram wi ba reuy fañ lay xass so tambalé wañ sa yaram wi ñu xass la di la jëw ba xam ni ñoo xam ne xàppi wuñ fuñ tollu rek ñu ngi wut lu ndaw lu ñuy jëwee nit yi noo all day seetaan leen focusal si yow def lu baax si yow loolu rek laa bëggoon a wax maa ngi continuer sama dox bi wàññeeku ba si kanam incha allah <laughs> bye guys see you again soon incha allah. waaw tey seet nañ seet tey nu may def escalier. escalator on you hokera escalator mo nawar mi ko min way ma baha dox bi ay wer ci gannaaw wala ñu doon xool ne ma ko tàmbali xaat ñu seet tey tey nag nu may def